lii boo bëggee xam ba xam livre bi dafa baax ci ci Ousmane Sonko la def liiral le chapitre sur la tache noire d'une troisième candidature sur l'histoire du Sénégal lépp wala nga lire cette affaire Adji Sarr Ousmane Sonko qui fait l'affaire de Macky Sall lire ko nga ma ne waxuma nga lire ko lire fanatique da koy lire liiru boroom xam-xam wala nga lire comme introduction bi nga xool introduction bi nga xam ne mooy partie bi ëpp importance ni mu cité nga lire ko nga xool ba xam livre day xas Ousmane Sonko wala et puis attends il faut ma wax leen dara ci Ousmane Sonko pour ngeen xam Ousmane Sonko je n'ai absolument aucun problème avec Ousmane Sonko il faut ngeen xam ko Ousmane Sonko mooy lan dañoo man ak moom histoire personnel xam nga mooy lan man ak moom ñoo bokk ci même université bi ñuy jàngee moom dafa jàngee université Saint-Louis ba pare bi mu demee mu def concours dem ENAM man ma jàngee université Saint-Louis am dem jox sama jàng ci réewu tubaab bi n'est-ce pas muy nit koo xam ne nii il existe dans le champ xam nga seen àdduna loo gis ku ne dafa am rôlam ku ne dafa am ci loo nekk Ousmane Sonko rôlam waar bi muy bàyyi mooy politique c'est normal mu ngi def li muy def man waar bi may way mu waar waar bi may bay mooy journalisme maa ngi ciy def lu may adduna noonu la donc ma créé Yëri Bos invité ko mu ñëw ñu def interview yaa ngi dégg ma créé Yëri Bos invité ko mu ñëw ñu def interview mu wax wax boo xam ni boo demee ci interview ni ko gis mu tàmbalee interview bi ni ma grande ma kontaan jàkkaarloog yow parce que man université bi ma ñëwee yow ak ñeneen ñu mel yoon lañ ma jox kow modèle donc fierté la pour man ma ñëw jàkkaarloog yow parce que ci yéen lañ doon roy bi ñuy jàng foofu ñu pare interview bi tëju wax ci Sénégal mu wax ma wax joo xam ne waxu nit la dëgg baal ma ci engagement lan moo tax mu jël politique et cetera ci problème mu Sénégal yi mu wax ma moom lan mooy ay solution wax ma aussi loo xam ne lu ñu mën a dégg la man aussi li ma xam ci àdduna bi. ak ni mu tëddee ak danger yi koy gerte yëpp ma wax ko ko parce que réewu àdduna bi dafa am force yoo xam ni tey xëy na boo jëlee nguur ba pare mën nga leen a waaye boo jëlagul nguur mënoo leen jàmb mu mel ni le lobby pétrolier par exemple ak bi ñu toll ci àdduna bi le lobby juif et cetera bref ñu waxtaan ma wax ko li ma xam ni force yi nga xam ne jàpp naa ni war na leen a bàyyi xel ci yoonam ba àgg fi mu jëm donc aw benn benn problème ak Ousmane sonk au contraire boo liiree bi da gis ni maa ngi rafetlu bu baax taxawaayam mais attends j'ai écrit dans ce livre nii palais bi li muy neex neex oolu palais bi li ñuy rafet rafet rafet lambre yi dóori du bi li muy neex neex neex Macky Sall bu fa tuddee Ousmane Sonko moo koy teree nelaw. bind naa ko wala bind ma ko. bind naa ko wala bind ma ko. leneen li naa ko wala bind ma ko. voilà Ousmane Sonko dañoo am ay xarit yu ñu bokk. xam nga Sénégal Sénégal dafa raw dama daal xoolal xoolal Sénégal Sénégal Sénégal dafa tuuti gis nga dédicace boobu indi coow li ki tax ma defal ko Ousmane Sonko. xaritam la sama xarit la dañoo bari xarit ñu bokk bari fu ñuy retrouver wu tu comprends ma respecté engagement am ci politique cër bi ko yàlla jox ci politique ci Sénégal ma delloo ko ko parce que yàlla moo ko def mais nag du yàlla du yonent bi du kilifa diine da nga wax te damay def distinction man entre relation yi ma am ak nit ki ak bu may def sama métier ci politique ni may waxe ci moom xam nga ne Macky sama mag la de Macky sama mag la lool depuis 2001 sama mag la sama mag la trop trop trop depuis 2001 laa wax pourtant bu may wax ci li mu bind boo lii livre bi da ngay xam ni amul lenn lu ma jàpp ni waroon na ko def te def ko te bind ma ko ci livre bi Amadou Ba sama mag la de. Amadou Ba non non eh, Elmat da may déglu nag xam nga tey xam nga xam nga fexe ba maa ngi wax da bàyyi ma wax Amadou Ba Amadou Ba déglu baax la ma Amadou Ba sama mag la de sama mag la waaye xam nga àdduna man de du ma xam nga am na ñoo xam ne nii. am na ñoo xam ne senegal dafa am lu ñuy dund guddi ak lu ñuy dindi ba man meluma noonu non Amadou Ba sama mag la mais boo liiree le problème Amadou Ba ci livre bi xam ne li ma xalaat ci taxawaayu politique am yëpp bind naa ko ba mu jeex tàkk parce que nit ñi il faut ñu def la part des choses entre entre ñu distinguer entre rapport personnel yi am ak nit ak li nga xam ne bu réew mi taxawee ak intérêt réew mi taxawee ni nga war a waxe man loolu laa gëm faruma kenn contre ma kenn képp ku liir livre bi ni man dama farak kenn wala dama contre kenn yow yaa farak kenn wala nga contre kenn loolu mooy dëgg beneen bi ci topp mooy politique du diine du tarixa du diine du tarixa yéen